mooy déggu way jàngam insha ndem soob na allahu yàlla taala kawe na dane ko nag bu ma dee taalif téere bi daa koo bëgg a teqale bunt ci gannaaw bunt bu ma dee bunt nangam a ngi nii wax fa la fa dëkk ko soxla mën ko faa seet bunt ba jeexee ma teg ci beneen noonu laa ko bëgg a tegale ndax mooy tax ku koy jàng mu neex a jàng neex a dégg wa iyaahu moom yàlla rek nastaxiru la ñuy listixaar listixaar moom sopp nañu mbir moo xam ne umpali nga ak mbujam bala nga caa dugg nga def listixaar ci sunna listixaar ci sunna nag mooy nga julli ñaari ràkka ci waxtu woo xam ne dagan naa naafila bu ko defee nee nañu bëgg nañ ràkka bu njëkk ba nga jàng ca gannaaw fatiha xul yaa ayyuha kaafiroon ràkka bu ñaareel gannaaw fatiha xul huwallahu ahad soo julee ñaar ràkka yi nag nga teg ci jàng ñaan nga nga xam ne yonante bi moo ko jàngale woon te ba muy joxe sunna sii mooy ba muy joxe xeetu listixaar yii ñu koy tuddee duhaawul istixaarati ñaanul istixaar moom nag moo tàmbalee ci allahumma inni astaxiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa asaluka min fadlika al azim jàll na waaye damaa yem foofu boo ko soxlaa mën nga koo xooli ci téeri addis yi mbaa ñu bindal la ko léegi nag boo julee ñaar rakk yi jàng ñaan googu nag gannaaw ba lu yàlla jëmale sa xol ci mbir moomee moo xam def ngaa moo xam bàyyi gaa nga jëm ca loola bu dee def nga nga def bu dee bàyyi nga nga bàyyi moom nag xëy na kon defoon na listixaar ba muy bëgg a taalif téere bi kon nag listixaaram léegi mooy yàlla dëppale ko na gën téere bi tëdde ko doonte nee noon day gàtt itam rek na nga xam ne moom la gëne yàlla dëppale ko noona kon nee na noo ngi sàkku ci yàlla lépp loo xam ne aw yiw la mu yombalal nu ko jëmale jël sunu xol te yombalal nu ko rawante na ci téere bi ñuy taalif yàlla defal ko na mu gëne mu demee noona wa bisi te ci yàlla rek nastain la ñuy sàkku dimbandikoo yàlla rek la ñuy sàkku mu dimbalenu wala xawla amul benn xeetu pexe buy tee mooy wala quwata amul benn xeetu kàttan buy tax a topp illaa billahi dara muy nekk ci yàlla alxali yàlla mi aji kawe alxasim yàlla mi aji màgg nee na pexe ak kàttan yàlla ko am man koo may ab jaamam pexe mi mooy pexe ba bañ a mooy kàttan gi mooy kàttanu topp yàlla na mu bëggee loolu nee nañu ibnu Mas'ud ne yonente bi daa mos a dégg may wax laa hawla wala quwata illa billahi aliyul azim ne mu ne ma teema laa wax li muy firi mu ne ko waaw wax ma ko kay mu daal di ma ne li muy firi mooy laa taxawula xam maasiyatillahi illa bi ismatihi wala quwata ala taaxatihi illa bi ianatihi yonente bi daal di ne noonu la ma ko jibril firiile jële ko ci yàlla boroomam kon laa hawla wala quwata loolu lay tekki yonente bi daal ko dénkaane loolu nag dañ daan wax ne aksiroo min qawli laa hawla wala quwata illa billahi l aliyul azim fa innahu yadfahu tisxatan wa tisxiina daa an adnaaha al lamamu wa huwa tarafun min al junooni daana wax ne bari leen a wax laa hawla wala quwata ndax danay fekk lu mat téeméer bi manqué benn ci xeeti jàngoro yu bon bon yoo xam ne ba ci gën a woyof mooy ak ndofe maanaam ba ci gën a woyof daal mooy xaw a dofe ba tey am na benn yoon mu ne aksiroo min zikri laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim fa innaha kanzun min kunuusil janna bari leen a tudd laa xawla wala quwata jooju ndax mi ngi bokk ci koomi àjjana yi am koom la ci koomi àjjana yi ba tey nee nañu waxal na ne man man an'ama allahu alayhi bi ni'matin wa araada baqaaha fal yuksir min qawli laa hawla wala quwata illa billahi alil azim koo xam ne yàlla xéewal na ko xéewal te bëgg xéewal ga bañ a dem xanaa sax ak moom rek na bari la wax laa hawla wala quwata joojule ba tey nee na woon boo amee loo xam ne sa xol sedd na ca nga wax macha allahu la quwata illa billah doo ci gis mukk lu lay naqari wa salla yàlla na dool tedd nga allahu yàlla xala sayidna ci sunu sang muhammadin muhammad nabihi kadib yonanteem wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak ay sahabaam wa sallama tem dool leen wóolu tasliman dolli wóolu kasiran gi aji bari maanaam tërjumaan téere bi dafa àgg mu bëgg a julli ci yonante bi nag balaa dugg ci njàngale mi dëgg-dëgg bala noo jàll ci bunt bi njëkk nu nettali addis yi nga xam ne ñëw na di wax ngëneeli xam-xam ndax ki jàng sawar bu baax a baax ci gëstu xam-xam nee na yonante bi waxam na ne la an yahdiyallahu la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan xayrun laka min addunia wa ma fiha wa man taallama baaban min alilmi utiya tawaaba sabayina nabiyan wa ruwiya siddiqan nee na yàlla gindee benn waay rek ci yow maanaam yàlla gindi kenn te jaarale ko ci yow nga xam ne ci yow la ko yàlla gindee moo gën ci yow adduna ak li ci biir nee na ku jàng benn bunt ci xam-xam yàlla jox la tuyaabay juróom-ñaar fukki ay yonante am nañu ne juróom-ñaar fukki ay siddiq ba tey yonante bi nee na woon yaqulu llahu taala yowma alqiyamati lil mujahidi wal aabidi udxula aljannata fa taqulu alulamaau ya rabbana bifadli ilmina jahadu wa abadu fama lana indak wa yaqul lahum antum hindi ka badi malaikati اشفعوا لعبادي كما كنتم تحسنون أدبهم وتعلمونهم ما لا يعلمون batay nga xol ba xam dafa nek kama kuntum tuhsinuna am tuhassinuna yonte bi ne su bis pencé yalla day wax kada jaamu ak kada jihar ci yoon yalla ne len ne len dem len aljana yeen ñaar borom xam-xam ya ne ah sunu borom ñoom day bu toll nun lañu def am àjjana duñ ko man ndax kiy jaamu noo ko xamal nu muy jaamoo kiy jihaar noo ko xamal nu muy jihaare kon nun loolu ñu defal mu ne leen yéen day yéen a ngi mel ne sama yenn malaaka yi may naa leen sax ngeen rambu saa jaam ñi na ngeen doon rafetale seenu yar ak seeni teggin ci àdduna di leen xamal loo xam ne xamuñu ko woon loolu moo tax may naa leen ngeen tindu leen ngeen ramu leen ba tey yonent bi nee na woon maa min daain ila hudan illa kaana lahu ajru man tabihahu min xayri an yanqusa min sawaabihim shay'un nee na kuy woote lu baax ña la wuy si ñëpp da nga am su tuyaaba ba noppi amaale seeni tuyaaba te du tax ñoom seen tuyaaba dara wàññi ko ja ba tey ibnu xaasim ne suñ masaa tàggu malik da leen di wax naa ittaqullaha wa afshu al ilma baynakum wala taktumuhu li anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qaala man ata al masjida li yataallama ilman aw yuallimahu rajaha ghaniman kal mujahidi fi sabilillah ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين النبيين إلا درجة واحدة ابن القاسم ne buñ ma sa taggu malik mu ne nu da ngeen ragal yàlla te lu ngeen am ci xam-xam ngeen tasaare ko te bañ koo nëbbu ndax yonent bi nee na woon ku dem ci jàkk ja ndax bëgg a jàng mbaa bëgg a jàngale boo wàññi koo da ngay mel ne ku jihaari woon ci yoonu yàlla te koo xam ne dee daa ñëw ci moom fekk muy sàkku xam-xam dañ koy jox daraja yi toll ne daanaka daraja yi yonante ya nga xam ne benn degré rek mooy dox digganteem ak degré yi daraja yonante ya ak yonante bi ne afdalu sadaqati an yataallama al mar'u al muslimu ilman suma yuallimahu axaahu al muslim li gën ci lu ñu amee tuyaabay saraxe mooy nit ki jàng xam-xam walbatiku jàngalaat ko mbokkum jullitam boo dee xool ci saxiixu muslim ak saxiixu buxaari yi hadis boobu bari nañu ko dégg ma nga naa laa xasada illa fisnatayni rajulun ataahu llahu maalan fa sallatahu ala halakatihi fi lxayr wa rajulun ataahu llahu lxikmata fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha nee na ñaar rek lañu war a ñee ku yàlla may alal te xiir ko ci def ko ci lu baax ak ku yàlla may xam-xam bu am njariñ mu di ca attee nit ñi di leen ko jàngal ba tey nee na woon fadlul aalimi xalal aabidi ka fadli xala adnaakum wa inna allaha wa malaikatahu wa ahla alsamawati wal ard xatta namla xatta namlata fi juhriha wa xatta alxoota nga xoola addis bu xam ndax mën na itam bu dee ci iraab bi xatta namlati fi juhriha wa xatta alxooti lu si nekk jantalu na la yusalluuna ala muallimin naasi alxayra rawahu tirmisi wa qaala xasanun saxiix fa hadihi al ahadisu dallatun ala sawaabi man allama wa daxaa yonente bi nee na woon li nga xam ni moom la boroom xam-xam ëpplee ngëneel kay jaamu yàlla te amul xam-xam mi ngi mel ne man yonente bi li nga xam ni moom laa gënee ga gën a suufee ci yéen daal di ne yàlla ak malaakaam yi ak waa asamaan ak suuf ba ci sax xorondom wa ca am paxam ak ba ci jën wa la ngaa kaga dañuy ñaanal ki nga xam ne moo xam te xamal nit ñi lu baax ñoo ñëpp dañ koy bokk di ko ñaanal baabu ma lii mooy buntub la nga xam ne tantiqu dina tudd bii ci moom al alsinatu làmmeñ ya wa taataqidu xoote koy fas al afidatu xol ya min waajibi umuri diyaanaati ci aji wari mbiri diine ya daa bëgg a jiital pas-pasu lislaam wala dugg ci fiq bi ndax pas-pas moo jiitu kon lii mooy buntub li nga xam ne moo lay xamal li nga war a fas ci sa xol seere ko ci sa làmmiñ te loolu mooy gëm gëm des ko war a fas ci xol ba noppi nag seere ko ci làmmiñ min zalika bokk na ci loolee al imaanu gëm ga bil qalbi ci xol ba wa nutqu ak tudd ga bi lisaani ci làmmiñ wa ni ann allah naka yàlla ilaahun buur la waahidun bu di benn laa ilaha amul benn buur xayruhu ndare moom baa nga ne budul moom wala shabiha te déet jenn aji nuru laxoo di ko ñeel wala nazira te déet ndend mu moroom laxoo di ko ñeel wala walada déet doom laxoo di ko ñeel wala walida déet bàyyi laxoo di ko ñeel wala saaxibata déet àndaale bu jigéen te mooy soxna laxoo di ko ñeel wala sharika déet jenn aji bokkaale laxoo di ko ñeel ne bokk na ci li nga xam ne su ko war a fas ci xol te seere ko ci làmmiñ mooy yàlla rek kay yàlla yàlla rek kay yàlla nga xam ne moom rek kay buur amul kenn ku nuroog moom amul kenn kuy moroomam amul doom amul baay amul yaay amul soxna amul kenn ku bokk ak moom dara lépp lu bokkute yàlla rek yàllaa ko sàkk muy ab jaamam bi mbindeefam rek lu bokkute yàlla rek jëfi yàlla loolu mooy pas-pas bi wóor ci yàlla laysa li awwaliyatihi der muy ñeel njalbeenam ibtidaawun ak tàmbali wala li axiriyatihi der muy ñeel ak mujjam inqidaawun ak jeex maanaam yàlla amul foo xam ne fa la dale woon amul foo xam ne itam bu fa àggee yem fa yàlla amul fenn foo xam ne fa la dale woon amul tam foo xam ne bu fa àggee ñu ne jeex na amatut mës ta ñàkk benn yoon te du dem ba yàgg mu ñàkk mukk-mukk laa yabluxu du jot kun fa sifatihi dëgg-dëgg meloom alwaasifoona way melal ña wala yuxiitu te du leemtu bi amrihi ci mbiram almutafakkiroona way xalaat ña yaa nag kenn mënta wax a wax ba ne yàlla nii la mel kenn mënta xalaat xalaat ba ne yàlla ci dëgg-dëgg mooy nangam yàlla rek xam yàlla ku bokkute yàlla rek umbali nga yàlla yaatabiru dana waaru almutafakkiroona way xalaat ña bi ayaati yi ci ay kiimtaanam wala yatafakkaroona te duñu xalaat fi ma iyati daati yi ci dëgg-dëgg jëmmam ja nee na ñuy xalaat te mën a xalaat te ñu xalaat ci kiimtaanam di ci yokkoo ak waaru ak gëm waaye duñu xalaat mukk ci dëgg-dëgg jëmmam ndax dëgg-dëgg jëmmam moom xel mënu ko takk karoot yonente bi waxal na ne tafakkaroo fi ay maxluqaatihi wala tatafakkaru fi daatihi man ngeen xalaat ci lu mu doon ci mbindaafonam yi waaye bu leen xalaat ci jëmmi boppam ji wala yuxiitoona te duñu leemtu bi shay'in ci dara min ilmihi ci xam-xamam ba illa bi ma ndara li nga xam ne sha soob na ko maanaam xam-xam moom lépp xam-xamu yàlla mooy ca seet la ko soob nag mu xamal ko mbindeef bu dee ci boppam mooy ci xamal mbindeef la ko soob bu dee ci ay mbindaafonam mooy ci xam mbindeef la ko soob moo cay xamal mbindeef la ko soob wasiha ëpp na kursiyuhu kursiyow nga asamawaati asamaan ya wal arda ak suuf sa wala ya ooduhoo te du ko diis xifduhuma seenu wattu al kursiyu day firi ab toogu waaye nee nañu kursi yu fii dafa nekk pays bu yaato yaatu ci pays yàlla yi yaatu ga yéeme ne ndax nee nañu boo boole woon asamaan ak suuf sànni ko ca biir day mel ni yow mu romboon ab àll bu yaatoo yaatu nga sànni ca benn jaaro na mu cay réeree ko feeñ waaye nag nee nañu arraché ko ëpp fuuf fuuf ba tey am nañu wax ne kursi yu xam-xam lañ ci jublu ci béréb boobu ak lu mu ci mën doon dañoo bëgg a xamle ne nguuru yàlla gi dafa yaatu yaatuwaay boo xam ne yàlla rek xam na mu toll te kat lépp lépp menn moom dong moo koy doxal li nguur gi yaatu yaatu menn moom rek mooy doxal lépp lépp lépp te doxal gi yomb ci moom lool li nguur gi yaatu yaatu ak li ñu nekk ci nguur gi bari bari bari saytu leen ak saytu lenn lenn lenn moo yem ci moom képp képp képp moo tax mu ne kursi yoom boo ko firee kursi yu dëgg-dëgg noonu ñu waxoon léegi ci pay bu yaatu boobu ak boo ko firee xam-xam ak boo ko firee nguur lu mu ci mën doon rek daal nguuru yàlla gi moom yaatu na yaatuwaay boo xam ne asamaan ak suuf ak aras ak kursi yoo lépp lépp daal nguuram goo xam ne moo koy saytu saytu bu ko yomb lool ni nga xam ne moom la saytu lenn képp képp képp yombe ci bu doon nit ndax yàlla moom amul lu gën a yomb ci moom ak lu gën a jafeñ ci moom waxuwa moom yàlla al aliyu mooy aji kawe ja al azimu kay aji màgg al alimu kay aji xam al xabiru kay aji dañ kumpa maanaam ka kumpaam dañ ci lépp lépp al mudabbiru kay aji doxal mbir ya al qadiru kay aji attan day wax ay tur yoo xam ne daa bokk ci melo yàlla maanaam bokk na ci pas-pasu lislaam nga gëm ne melo yi wax fii ak yeneen melo sunu boroom la yoo xam ne da koo jagoo mbaa boog bu ca mayee mi def dara itam ni ki xam-xam ak yu demee noonu moo ko ci sédd rek la ko ca soob li mu njëkk wax nag mooy yàlla day ku màgg ku kawe kawe koo xam ne jombante naag kenn di wax nam mel ba kenn di xam dëgg-dëgg ak màggaayam ak kan mooy moom dëgg-dëgg dëgg-dëgg moom rek moo xam boppam ba tey bokk na ci melo yi yàlla xam gu mu xam lépp lépp lépp te leen lu ne mu xame ko na mu doone nga xam ne mook alxabir jim ci teg aji dañ kumpa daanaka sorewuñ ndax kumpaam day na ci lépp moo xam ne lépp mel na ne sorewuñu ba tey yàlla mooy doxal mbir yëpp yëpp yëpp yëpp amul kenn koo xam ne dana doxal dara dara yoo seen rek muy nuru ne kookaay doxal it xamal ne yàlla moom ca dëgg-dëgg mooy doxal daa feeñ ca mbindeefu moom mi mel ne mooy doxal rek waaye ca dëgg-dëgg yàlla mooy doxal ba tey yàlla mooy ki man lépp lépp tëlewul dara dara dara maanaam lu mu deful rek day loo xam ne da ko narut waaye dara assamiu kay aji dégg albasiru kay aji gis alxaliyu kay aji kawe alkabiru kay aji màgg xo boole foofu tur yu bari bari yoo xam ne ay melo yàlla daa wax ne yàlla mooy ku kawe ka ku màgg ka nga xam lépp kumpaam denc lépp mooy doxal mbir yi moo man lépp sañ lépp amee dégg ba yàlla ca moom ak gis ba yàlla ca moom ak sax wax ga yàlla ca moom dana ko wax ci kanam tuuti wa annahu war ñoo fas ni naka yàlla it fawqa xarsi yi nekk na ci kaw xarasam nga almajid ga aji tedd bi daati yi ci jëmam nee na bokk na ci pas-pasu lislaam ñu gëm ne yàllaa nga ca kaw arasam gu tedd ga waaye loolu nag moom biñ ne yàlla yemoo na ci kaw aras te moo koy waxal boppam sax ci alquran tu mustawa xalal xaraj ñoo yemoo day def ni mbindeef suñu waxanteeg moom ci jëmm ju ne léng yoo xam ne miin na ko ni ki ni miine lalu buur wala toogu buur day tax rek loolu gën a réy fi moom waaye suñ boroom moom buñ jéem a xam na mu nekkee ci kaw aras mbaa sunu boroom nu mu yemoo ca kaw aras ndax bu fekkoon aras mën na koo taawu mu toog ca kaw toog bu jekk ndax istiwaaw moom mooy rek boo toogee ci lal bi mbaa ci toogu bi toog bu jekk rek ba jekk ko loolu mooy istiwaaw ak yemoo kon dañuy gëm rek ne sunu boroom nu mu wax ne noonu laa def mbaa noonu laa mel noona la te bañu jéem a xam nag na mu ko defee ak na mu ko mele dañoo bëgg a waxanteeg mbindeef rek na nga xam ne moom la gën a mën a xame lu màgg ak lu rëy waxoo moom yàlla fii ku li makaan nekk na ci bépp béréb bisil mi ca xam-xamam ba maanaam bu ñu ne yàllaa ngi ci béréb bu ne day nuru tagg waaye du tagg tagg bi kay mooy nga ne lépp nga fa yàlla béréb yépp nga fa yàlla ndax boo ne yàllaa ngi ci bépp béréb day mel ne kon béréb da koo ëmb te xam nga yàlla gannaaw bi moo sàkk béréb ak jamono ba mu sàkkul béréb ak jamono na meloon rek ba tey noonu la mel kon dañu wax lépp nga fa yàlla te bañ ne yàllaa ngi fépp xalaqa bind na al insaana nit wa ya'lamu te dana xam maa la nga xam ne tu waswis dana jax-jaxee bii ci moom nafsuhu xelam wa huwa te moom aqrabu moo gën a jege ilayhi jëm ci nit min habli waridi ci buumu xol ne yàlla moo sàkk nit te lu xelum nit di xalaata ka setantal lépp yàlla nga koy xam ñeel sax moo ko ci def dina ci sam xel sax léegi ci gàttal yàllaa ko ci def kon yàlla du umpale dara dara ci nit rawante na la muy wax ak la muy jëf waaye la muy xalaat sax yàlla da koy xam ndax moo ko ci def bu mu xolam li mu koy jege jege ni ko yàlla jegee ci xam moo ko raw kenn ku ne daal na si duumu xol jegee ni la yàlla jegee ko raw wa maa tasqutu du rot wa maa tasqutu du rot mi waraqatin wenn xob illaa ya'lamuhaa ndari dana ko xam moom yàlla wala xabatin du ceegeen aw fepp fii zulumaatil ardi ci lëndamaayu suuf wala ratbin du ceegeenu aji tooy wala yaabisin du ceegeenu aji wow illaa fii kitaabin ndari mu nekk ci téere mu biir bi aji bir loolu ñëw na ci alquran maanaam xob yi li ñu bari bari xob wu rot ak xob wu rot ñooy amoo yàllaa ko bàyyi fa mu nekk aw xob mënta rot mukk ba aw xob nekk fenn te du yàlla xam na ko te moo ko bàyyi foofu pepp yi li ñuy bari bari fepp wu ci nekk ka koy lekk baa bu fekkee kenn du ko lekk day sax ak lu mu lëndëm lëndëm lépp rek yàlla xamal na ko rëdd ko te loolee mu xamal rëdd ko dara du ci rëcc lépp lu tooy moo ko tooyal lépp lu wow moo ko wowal tey lu ci nekk da ko rëddoon laata muy tooy mbaa laata muy wow te na mu ko rëddewoon rek noonu lay amee amul luy tombe rek am mbaa rëcc rek am loo gisee ak dogal la loo gis rek yàlla rëddoon na ko ne nangam dana am ba àggee ci waxtu amee noonu waaye dara du rëcc dara du tombe istawa yemoon xal xaras ci ko xaras yemoo gi doon wax mooy toog ba jekk ci kaw dara daa wax ba tàyyi su mustawa xal xaras kon des koy gëm nag te bañ a xam na mu ko defee mooy yemoo googu ci kaw xaras ndax dañ ko yemalee mbindeef la weesu woon fee nag mooy dana woon ma nga ci ko arasam gu tedd ga ci jëmam ba tey loolu bokk te mbindeef mi nga ne ma nga toog ca lalam nga xam ne boo waaxoon fekk ko ci kaw lal wa wala boog boo jéem a xam nam ko boo jéem a xam moom yàlla na mu nekk ci arasam gu tedd ga ndax bañ ko nuróolee mbindeef waxtawaate mu làq xalal mulki ca nguur ga wala xóote ñeel na ko al asmaaw tur yi alxusnaa yi di way rafet wa sifaatu ak melo yi alxulaa yi di way kawe nee na yàlla moom moom tur yu rafet yi moom moom melo yu kawe yi lam yasal mësta dañ bi jëmi sifaat yi ci mboole meloom ya wa asmaa yi ak turam ya naka jëkk tur yu rafet yi nga xam ne moom la tudd ak melo yu kaw yi nga xam ne moom la melowoo naka jëkk rek noonu la demee te du jóg mukk mukk ndax yàlla moom soppi ko taala jomb na antakoona bu nekkee sifaatuhu meloom ya maxluuqatan di lu ñu bind wa asmaauhu ay turam jomb nañu nekk muxdasatan di ñu sos maanaam melo yàlla yi ni jëmmam ci la mel amu ci lenn lu am fu mu dalee mbaa fu mu yem waa nekkul lu sosu loo xam ne am na jamono am na jamono amutoon gannaaw bu wëlbati ko am déedéet jëmmam ak meloom yépp amut fu mu doore amut fu mu yem ay turam itam noonu amut ci wenn tur wu sosu ne jëmmam rek jëmmam sosuwut ay turam sosuwut ay meloom sosuwut sosu mooy am fu mu dale kàllaama waxante woon naag Moussa Moussa bi kalaamihi ci waxam ji allazi ja nga xam ne huwa moom sifatu zaati yi moo di melow jëmmam laa xalxun du am bindeef min xalq yi ci bindeefam waxante woon naag Moussa waxi na wa nga xam ne mooy yàlla ca moom ci jëmmam ci tedd ja wax ja waxanteeg moom du bindeef mais ñun wax yi ni wax bindeef la mu yàlla sàkk ne ñun wax ji yàlla waxanteeg Moussa nag moom mooy wax ji yàlla ca moom te suñu borom bëggee waxanteeg am bindeefam mooy xam ne muy waxanteeg moom ba waxi boppam ja àgg ca moom kon waxi boppam la waxante woon ak Moussa te bu bëggee waxanteeg mbindeefam ni mu ko bëgg a waxee loola yàlla dara jafewu ko lu mu narul rek mooy jafe waaye lu mu nar moom day daal di yomb wate jàllaate mu feeñu lil jabali ñeel doj wa wasaarate mu mujj dàkkan di ëppand min jëlaalihi ngir màggam nga Moussa ba suñu borom waxanteeg moom dane ko may ma ma gis la mu ne ko mënoo dékku sama gis dana ci tegtal mooy su ma feeñoo tuuti doj woowu te doj wi mënuma mënumaa dékku da nga war a xam ne kon montagne bu boo mënta dékku yow doo ko mën lu tuuti ci leeru yàlla xaw a toll ne catul baaraamu sangale rek moo feeñu doj wa doj wa daal di mokk mel ni pënd Moussa daanuy xam te tuub falamma tajalla rabbuhu li jabali jaxalahu dakkan wa xarra Moussa saayiqan falamma afaaqa qaala subhaanaka tubtu ilayka joojee ci suuratul Araaf wa anna alqur'aana war na noo fas ne naka alqur'aan kalaamallaahi may wax yàlla laysa bi maxluuqin du lu ñu bind fa yabiida ba muy alko wala sifatan te du aw melo li maxluuqin ñeel ku ñu bind fayen fada ba muy jeex alqur'aan nee na wax yàlla joo xam ne du mbindeef kenn du wax ne alxuraan mbindeef la waaye nag dafa am ñaari maanaa baat yi nga xam ne moom ngay jàng moom nga xam ne am nay araf am na fu mu tàmbalee am na fu mu yem moom bokkut ak wax yàlla ja dëgg-dëgg wax yàlla ja dëgg-dëgg moom ni nga umpalee jëmmam ak ak melo mi ci des noonu ngay umpalee waxinam dëgg-dëgg waaye nag alxuraan ji mooy tegtale la mu bëgg na wax yonante bi waaye teewul na alxuraan gën naa màgg lool téere ci des ndax. buñ mësaa di yónni ci ab yonante dañ yeble ci moom rek sol ko maanaa yi moom nag moo koy wax maanaam mooy wax baat yi ci làmmiñu boppam maanaam nga xam ne baat yi kookaa koy tànnal boppam yonante bi nag moom suñu borom ci boppam moo ko sax baat yi nga xam ne moom lay wax nga xam ne du baati boppam du yonante bi dañ ko sol maanaa yi ci xelam rek ci xolam rek mu daal di koy tekkil boppam déedéet baat yi ci boppam noonu ñu ko ko waxee mu jottali ko nga xam ne yokku ci wenn araf wàññiwu ci wenn araf nga xam ne kon bi ñuy wax alxuraan wax yàlla ba taw ko day am ñaari maanaa wax yàlla ja dëgg-dëgg nga xam ne moom moom la ji di tekki jooja moom umpale nga ko ñu ngay umpalee jëmmi yàlla ak meloo nga xam ne waxam moom du am araf du am kàddu du am fu muy dale du am fu muy yem du am luy jiitu ak luy mujj ak mbool li nga xam ci wax mi def ko defee nag ji ngay jàng nag moom day tekki rek waxam ja dëgg dëgg dëgg waaye kenn du wax ne alxuraan mi wax yàlla ci boppam mbindeef la muy dem ba yàgg muy jeex mbaa mel mbaa mbindeef ko melowoo bu mbindeef ma jeexee yóbbaale ko mu jeex ne moom déedéet dañoo ne ne bokk na ci melo yàlla yi ak mën a wax waaw wa kallama llaahu Muusaa takliiman wane na ne yàlla bokk na ci meloom wax ga yàlla ca moom wal imaanu war na itam gëm bil qadari ca dogal ba xayrihi aw yiwam wa sharrihi ak ayam xulwihi aji neexam wa murrihi ak aji naqareem wa kullu zalika mboolem loolu xadd xaddaraxoo dogal na ko allahu yàlla rabbu naa koy suñu boroom bokk na ci pas-pasu lislaam gëm ne ab dogal lu am la maanaam lépp lu am rek yàlla nattan ne nangam dana am ci waxtu sàngam ci béréb sàngam bu ñu àggee ci waxtu wa ba amale ko noonee mu ko rëdde woon nga xam ne amul rek luy rëcc daal di am mbaa luy tombe rek am loo gis rek ab dogal la mu neex mu naqari mu yiw muy ay lépp rek dogal bee wa maqaadirul umuuri dogali mbir yi biyadi yi nekk na ci loxoom wa masdaruha seen gongiwukaay maanaam seen bàyyiwukaay xan qadaa'ihi moo di arteem ba ñeneen mbir yëpp dogalub yàlla te leen lu ci nekk dafa àtte woon maanaam daa rëddoon ba ne nangam dana am ci anam sangam buñ ci àggee nag mu amee ci waxtu woowa ak anam yooyu rek dara du ci rëcc xaalima xam na moom yàlla kulle seen bépp mbir xabla kaw ni yi njëkk ak nekk mooy njëkk ak amam ba jaraate mu daw xalaa xadri yi ci kem dogalam ba nee na mbir mu ne yàlla xamoon na ko njëkk muy am rëdd ko bu ci àggee sottal ko nam ko rëddewoon rek rëcc mbaa tombe du am mukk laa yekkoon du nekk min xibaari yi tukkee ci jaam xawlun wax wala xamalun du caaginu jëf illaa wa qad qadaahu ndare mu àtte ko wa sabaqa te jiitu xilmuhu xamam nga bii ci moom nee na jaam ñi sax lu waay wax mbaa lu waay jëf fekk na yàlla àtte ne jaamam sàngam dana wax nangam baa dana jëf nangam te it maanaam jaam bu nekk daal yàlla xam ne fa muy jaari fa muy tàmbalee ba fa muy yem alaa yaalamu ndax du xam man yàlla mi nga xam ne xalaqa bind na wax wate moom al latifu mooy aji ñëwante ja mbaa boog mooy aji sew ja al xabiiru kay aji dañ kumpa nee na yàlla mi nga xam ne moo sàkk mbindeef nu mu koy umpalee te mooy ku xereñ a xereñ te moom muy ku xereñ a xereñ ku dañ ku dañ dañ kumpa nu muy umpalee la mu sàkk day dëgëral ne alxuraan la yàlla moo sàkk mbindeef te dara du ko umb ci moom yow dellu gën a réeral man yashaaw ku ko soob fa yax duluhoo tam koy wàcc bi àdduna yi